mas na ko def nettali naa leen ko fi ak gouverneur général Bourguier parce que dafa làqu ci biir fête la woon nee na ma c'était la fête des Français mu ni ma ça s'appelle le 14 juillet ne ma làqu ci biir ma làqu ci biir ancien combattant ne ci pané ba ne mu ñëw di leen nuyu ba ci ci man mu jox ma loxo ma tiyé loxo né né officier d'ordonnance am bëgg intervenir mu def ko ni mu ni nit ko amul woon morom la ma ni ko dégg na ko ci man na mu melni def ma bayyi pour ma présenter son bopp ne me présenter que son bopp woon que que je suis magistrat mu melni dafa am choc parce que magistrat ci bobu jamono du gouverneur général bureau ya xamul kooku mënul nek mu ni que je suis magistrat mu ne ko ah bon mu ni que je suis aussi prophète représentant de Dieu ah, ça c'est autre chose. que je suis aussi un vidanceur. Affaire Yagétique. que je suis comptable de commerce, chef de chantier. que je suis terrassier. que je suis écrivain public ne maa ngi loxo avec tout ça je connais toutes les origines de la littérature française et toutes les origines de la littérature coranique ne mu ma on va voir ça

ni ko rekk ci gàttal c'est un homme de tempérament yam foofu mu rée ba daanu ci suuf li ma maam sàmb ma ni ko amu ni ma sa bopp moo yaru wallaay ndeysaan ma ni ko lool kay du yaru rekk yam ci ndeysaan waaye góor gi ku wattu woon nit kooku le la xaw ma lu sax daan na ñëw ba ci chambre à coucher am taal cigarette am di tox te góor gi du ko wax dara man nag maa doon bakkanam man la yeb di waxtaan ak man waxtaan wu mu dul waxtaan ak kenn lu dul bu ko Omar Samba fekkee mais góor gi wax na ci phrase bu tuuti bu mat a bàyyi xel te brevier la croix, ni les mystiques ont toujours triché avec les rois et que pourtant ils ont la même mission mais man ils ont la même mission de dégueulasse loolu moo taxoon Maodo wax El Hadj Abdoulaye Niass ni ko dugg sil ci biir dëkk bi parce que tubaab bu la xamee du xareeg yow waaye bu la xare la te loolay dëgg lay sax ma ni ko daal Mame Abdou man li ma jàpp ci affaire bi mooy yow danga wax ni Dieu crée les hommes, mais c'est le colonisateur qui invente les personnages. la c'est la vérité parce que toujours colonisation non laide, mais créer ay personnage calife général mais parce qu'il n'est pas calife général il est autre chose ba léegi nanguwuma ko ñu wër tudde xalif général yilif ma jamais au grand super stérile. Super stérile. Super stérile. C'est très mauvais. ndeysaan bu ma joxee kayitam yi nañ ma ni nañ ma changer moo xam bu ñu accès ci profession ma ni ko lu ma ciy def mu def ci cultivateur ko te ma def ko agriculteur bopp ndax mu gën a rafet mu ni ma mukk parce que amagu fi agriculteur amagu fi def ci rek def ci rekk cultivateur doy na sëkk parce que je suis cultivateur jigéen ji bu dee defar lu kayit ma ni ko aw profession bi lu may def mu di def ci ménagère parce que ménagère la def ko ci Vous voyez, nous ñom ñoy inventé personnage ñom colonisateurs mais c'est Dieu qui crée les hommes c'est Dieu qui crée les hommes c'est le colonisateur qui invente les personnages et c'est très mauvais moo tax lu leen neex def lu leen neex def parce que personnage bi la ñuy indi lor la ci ba nga dee te fekke nekkul ci yoon toujours moom la ñuy wax buñ ko nee nag al xalifa là je suis entièrement d'accord waaw al xalifa la je mais calife général la xamul lu muy firi ba léegi junior tontu na leen ko fii ni su ngeen bëggee mu tudd ko da di nax seen bopp de ndax ma su ko tuddal Babacar si mukk nit nit ku nekk bàyyi ko ci lu mu gëm nit ku nekk bàyyi ko ci lu mu gëm moo gën a baax nag yi ci des yëpp ay singerie la rek baaxul baaxul mukk waxuma nag ñi jóg ni ñooy hiérarchiser fami maraboutique yi waaw <laughs> gis ngeen ko ni mu xewee nit ñu jóg noonu rek ñu amul benn responsabilité nit dañuy hiérarchiser fami maraboutique mais loolu catastrophe la catastrophe la kooku catastrophe la baaxul baaxul di hiérarchiser yow mës dégg ci àlla jabib àlla jabib si bariwul woon wax mu ku bari woon xalaat la Senghor daf ma daan wax ni nit ñi defe nañ ni yow laa jëkk am comme militant ci famille si mais Alaaji Habib laa ci jëkk am ma ni ko man moo ma dugal ci yow moom moo fexe ba convaincre ma ni naa nekk Senghoriste moo tax ma nekk Senghoriste te ñu bari dañu defe ni sëñ Babacar a tax man sama xarit la woon ma nit bu la bañee ba di la wutal wujj bu la ko wutalul ci biir famille am rek kontaanal parce que bu sañoon ci famille am lu koy jële mais comme jëlewu ko ci famille am kay yow kay tëddal nelaw moo ko daan wax lu am solo la lu am solo la lu am solo la ndeysaan ci suba rek laa génne lettre bi mu bindoon daayiratul kiram booba daayiratul kiram dafa am ñu jékki-jékki rek dugg ci biir ndekke mission la jot pour tas ko mu yëg ko nag wax ni su ngeen xamoon li ma xam fu Babacar si nekk bu ngeen amul tànkit di ngeen raam dem fa maa ngeeg bi ينكو وان قصدا بوبو يا سيد السادات جئتك طالبا نيل الوصول لحضرة الرحمن منيكو ناكا نبنبي الانسان ما دف بين الديوان ما يدف اي قصيدة قصيدة قصيدة بابا مانجي جامد ba boole leen mu nekk benn diwaan ma xëy rek diwaan bi ni mër gisatuma ko gisatuma ko gisatuma ko ba ma xëy sos kër ba xam naa jamono yooyu mi ngi xalaat ni demam jege na mu woo Abdou Aziz jox ko diwaan ba ni ko waxal Cheikh ni ko maa ko sàccoon wallaay ndeysaan ndax dama xam ni boobu bu ma ko ko joxoon mu édité ko te du baax ci mu mukk waaw ak gémmiñ baaxul seetal loolu mooy diwaan bi ma jëkk def ci kaw suuf seetal loolu wallaay ndeysaan bu ma ko ko joxoon doon na ko édité te du baax mu indi jox ma ko ma nga màggat nag waaye tabarkal la léeg-léeg ma rocc ca benn ndax sëriñ Moussa damay wax ni nit ñi nee ñu sa wëy yu njëkk dàq yu mujj yi ma ko parce yu mujj yi dafa màggat dafa màggat moom mën a yem képp waaye yu njëkk ya nag dafa ndawoon wallaay ndeysaan kenn mësu ko gis loolu kenn mësu ko gis dañu nekk ci daara ji mësuma gis mukk daara bu riche noonu euh, mësuma gis mukk xale xale yu xër ci xam-xam ci boobu jamono ba ak dootul am kenn ngi ci koo xam ni moom danger public la yeewuteem ak pas-pasam man toujours dama daan weranteeg moom mais toujours dama daan amee ñaari téere ak mu ak muwatta suñu werante werante werante bu waxee ma ne ko mais li nga wax bokkul ak li mu dëwën a wax mu ni ma mais man maa wax loolu man maa ko wax mais mu dëwën a li ci ne Malick moo ko wax ma ne ko mais yow yëpp Malick mu ni ma yàppu ma ko sama collègue la ba tab sama gémmiñ nga ni mu ni sama collègue la parce que man talibé cheikh la fa bay batu tuba wa khibi alfin ko defé ma tek ci souf mais dama ko dan xol dan na tok ci souba di bind ba jant so do xam li muy bind la la mais dafa xey rek disparaître kenn xamul fu mu nek ba nek ay phénomène rek nga dan gis ay phénomène yàlla ubbi seen dënn ñu sawar ci jàng man mësuma gis loolu booba faydu amagul faydu indi musiba waaw parce que faydu def noonu yàlla bu la mayee xéwal bu ëpp boole ci musiba bu tolloonu noonu lay def mais xale yooyu ni ñu sawari woon ci jàng ak ni ñu yeewoo woon ak ni ñu xame woon njariñ jàng dafa yàlla xam na ko ndeysaan ndeysaan génération bi ci toppit pourtant góorgóorlu lañu tuuti mooy ñoom ëmmat loo ñoom xaj maxtaar jën ñii ñoo ñëpp ñu nag ñooy génération ñaareel bi ñoom itam bare na ci ñu ma jàngal man mi maa leen jàngal waaw yàlla xam na ko ñi ci nekkoon silmaxa ñëpp sëñ Babacar daf ma na nga leen gën a fonk ndax ci la yool bi ëppee waaw ñoom Sader Ba Sader surtout maam ñett lañu am na Maba Jaxu am na Abdoulaye Wulimata Xumma ñun ci Abdoulaye Wulimata Xumma la bokk moo tax ku sant Xumma sama mbokk waaw ma ma Samba Sare ñoo bokk pénc ca kajoor boo ko laajee dana ko xam jàmbaar piir la woon Alaaji Usmaan boo tuddee rekk mu ni moom rekk a fi nekk wallaay ndeysaan kenn bu ko fit Alaaji Usmaan kan lu ne ñeme na ko ci kaw suuf ndeysaan waaye dama daan sonn sonn sonn pendant quinze noppaloo ba médecin yi ni naa bàyyi parce que sama rein yi yépp yàqu na mais mënuma ci dara mujj na ci saalu sëñ Babacar lay jàngale daan naa xëy ba ñu noddu takkusaan ñama daan jàngal ñooy jàngale tey amul sax werante moo tax man mii maay borom daara ji Deng, de dama len di yeeram sax wallahi ndax bëgg nit di tok fukki at do ko gis waaw te sa bëgg-bëgg di yokku loolu ci yàlla la jóge tey ci suba laa koy ni ñi dañu dof nit ñi dañu dof ki nga ñaar fukki at ngi te tey nga gën a xeer ci moom c'est que da nga dof moo tax Sëriñ Babacar dama daan wax ni di nga gàddu wallaay ndax nit ñi yow rek lañu sopp li ma xaw ma li ma la tudde ki ma gën a sopp ci àdduna moo tax wala de waaye nit ñi yow rek lañu sopp waaw ma ni ko duma am xarit bu la bëggul duma ko def mukk xarit duma ko am mukk mukk soxlawuma ko xarit bu la bëgg rek te loolu moo nekk li ci des yëpp caaxaan la ànd ak on en nit ñi talatuñ ko amatuñu tàngam te dañu wéradi yàlla wàcc wéradi kenn du ku nekk bés bu ne nga faju loolu dafa mën ànd ak ay singerie ak ay enfantillage yu dul jeex mu mënul nekk loolu nekk <laughs> mënul nekk nag mënul nekk nag yaa ngi fi yu jigéen yi ak yu góor yi kilifa yaa ngi fi yu ndaw yi ak yu mag yi tabarkalla tabarkalla ci biir loolu itam li ma xam te xam ko mooy sëriñ Babacar si moo leen jox daayiratul mustarshidin wal mustarshidaat ci démb laa ci waxtaan ak Serigne Moustapha mu ni ma na nga ñu négocier ak sa turandoo mu leeralal ñu ban yoon la war a jaar ndax jamono bi lëndëm na te lënd na ma ni ko déglu leen ma loolu moo ci nekk leneen nekku ci leneen nekku ci ba daana kon nag man dama leen di ñaanal yàlla rekk waxtu wu ne waaw ma leen di ñaanal yàlla metti na nag metti na waaye moo gën metti na wante moo gën ndax fi ma jaar bu ngeen fa jaaree taqaban daan naa réer réer ñaari weer kenn du xam fu ma la ma nekk ci bi rek dan dan dan dan jënd naa benn komankaar ñaar fukki junni laa ko jënd militaire yee ma ko jaay ma amee ko juróom benn at fu ma ko dugalul amul sëriñ mu niru dafa mujj ni ma bindal ko lijaasa nag komankaar bi bindal ko lijaasa nag ndax mu xaddam la léegi te mooy dëgg te mooy dëgg sëñ Babacar daf ma ni bés nekk naa nekk naa lu nekk ci sa maam sa maam nekk naa lu nekkam من نكنا بنك حذيفة بن اليمن تكرتين ملاك حذيفة بن اليمن لن مدن تخوايم منيما مجناكو خمسة مجناكو خمسة نمو خمو yàlla xam na ko ci barke waaw nit la ku nga xam ni dafa jékki-jékki di addu yonent bi ni kii du xudayfa bi ma xamoon ndeke nubuwa moo jeex mais wax yu jeexul waaw nubuwa moo jeex mais wax yu jeexul ndeke xudayfa yàllaa ngi defar làmmiñam di defar xolam yonent bi yëg ko ci moom te xudayfa ci boppam yëgu ko dem ci dem ci dem ci ba yonent bi yéem ko benn kiimaan ndeke yàlla dafa bëgg superviser les renseignements généraux parce que renseignements généraux mën na yëkkati régime comme mën na ko daaneel ça il te booba euh, li tax sëriñ Babacar wax ko amul kenn ku xamoon ni Maodo ko jur bu ko defee dëkk bu ko neex mën na fa fanaan def fa enquête ba xam muqaddam yi jubak yi jubati mu bind ci rapport indil ko Maodo parce que ñi ci des dañuy boolente waaye labiré wu ñu Maodo dañuy boolente waaye moom dafa labiré Maodo waaw nee na ci làmmiñam boo gisee ngin gi néew gayn gi néew ngin gi néew maa ko tudde ngan gu néew ndax dama fa dem te bañ ku ma xam ndax dafa am kuñ fa tuumaaloon ci wàllu Maodo nekk du dëkk maa dem lijjanti ko ba xam ni du dëgg mais kenn xamul ni Maodo ma jub ndax kër ga ma dal moo mujj ca dëkk ba te pajaas ba ma fanaan nee na xaaxaam ya ca nekk rek mënuma la ko nettali parce que kenn xamul ni Maodo ma jur mësuma ko nangu ne mu ñëw nag ni Maodo liñ fi indi yëpp dara du ci dëkk nii la deme nii la deme nii la deme nii la deme mu ni ma defal naa ko Guinguinéo defal na ko ko jurbel defal na ko ko saint defal na ko ko Louga motax ma nekkon nekkoon ibn al-yamanam benn bes maître du jàmm téléphone ni ma ndax man na le gis yak fekk Senghor tukki mu assuré intérim ma ñëw mu ni ma dama joteeg moom parce que dafa am lu ñu bind ci man te jaarul du dëkk mu ni ma nag lan nga ma mën a jox ci preuve ni du dëgg ma ni ko ki ko bind def na ci fot loolu rek laa la mën a jox comme preuve ci ni du dëgg ma ni ko mu ni ko parce que renseignement généraux du bind rek da ngay def analyse tirer conclusion dimbale ci chef bi te loolu ko koy def du def fot ci phrase yi xamuloon mënu ko te fii foot rek la feese sengoor nu ko wax nga tëgg sengoor nu ko wax nga parce que kiy boole te mënul bind lu correct li muy boole xamu ko ça il faut dire la vérité xudayfatu bnul yamaan looloo tax ñu bàyyeele ko tariqa yi tariqa yëpp mooy seen patron ali ibnu abi talib lañ ko joxoon mu ne amul temps jox ko xudayfatu bnul yamaan bi muy dem mu jox ko xasanul basri xasanul basri bi muy dem mu jox ko imam junayd mu kotti mag ñi dañu ko ragal bantum gudd lañ ko laale xam ngeen loolu wa fi tariqati Junayd Salik te seen ibnu Asra Junayd dafa am ñu ko gëm ba ngëm nga ëpp na benn mag bu ñëw wax abul mursi ak benn mag bu ñuy wax ibnu abaillah ak benn mag bu ñuy wax imam shadali gis nga abul abbasil mursi moy sëriñu imam bosri bi def burdatul madiya abul abbas moy serignam abul abbas jël kërëm soppi ko def ko centre pour di ci former doomu soxna yi génn benn guddi dëkk ci ñi muy formé ku jëw Junayd mu xëy jaay kër ga ñépp jaaxle lu war a grave nii ba muy jaay kër gi mu leen mais justement parce que fu ñu ko jëwee leer dootu fa wàcc lolu motax fi leer dootul fi wàcc la huwa sayidul akbar seetal loolu te ñun ku ñu neex rek ñu jëw la ku ñu neex rek ñu jëw benn yoon la dégg taalibe jëw ko junayd mu jaay kër ndax am na yaqin ci ni leer dootu fa wàcc moo mystique yu moderne yi tuddee leen ñoom le trio infernal le trio infernal mais ñom ñaar ñépp nak ñoo jiital Chazali muy série sëriñ Abul Abbas el Mursi ibnu ataillah ñoo jiital Chaadili muy seen sëriñ Chaadili mooy sa sëriñu am yow astukan mi ñu tudde soxna astukan bu tëdd fi pour wax ni nun du gan ci yëf yi du gan ci yëf yi alaaji abdul aziz wax na ko fii soxna umul xayr di ko bu la Babacar jurul woon it nga mel nii ndax alaaji abdu kan a

ci nit man pexe amul pexe amul dañ koy wax shukra lillahi azza wa jal wa amma bi ni'mati rabbika fa haddith wa amma bi ni'mati rabbika fa haddith loolu la ñu waxoon góor ga góor ga romboon juróom-ñeent juróom-ñeenti nit ñuy jamoo wa duha suratu duha yonent bi jëkke wa duha wa leyli ida saja cheikh topp ma waddaaka rabuka wa maqala cheikh harazim topp ci wala al axiratu xayru laka min al ula mahamadul ghali topp ci wala sawfa yuxdika rabuka fatarda cheikh alhaji omar topp ci alam yajidka yatiman fa awa maam alfa topp ca alfa xëy ma yor alam yajidka yatiman fa awa mu topp ca wajadaka dallan fa hada maam Ousmane bi jur Sidi El Hadj Malick wajadaka ailan fa agna Serigne Babacar Touré Ini ni ini tax ñu ni maam Ousmane jël na wër bu cheikh ndax mën nañ ko jël ci bar sax waaw lolo tax mag ñep ni mam Ousmane jël na tariqa cheikh ndax nit mën na ko jël ci bar nah. du ko wañi dara sunu bàjjen yu sunu bàyyi yu baax yi ku la ci masaan nuyu si demba la lay wax walaay ndeysaan problème bu sérieux la ku la ci nuyu rek ni si demb rawatina sama bàjjirum këlsëm si demba suñu bàyyi ku la ci nuyu si demba suñu bàjjen yi ku la ci nuyu si demba mag ñi ku la ci nuyu si demba parce que dañu poser problème bu sérieux mooy Maodo li mu nekk daf ko fort walla daf ko doon ñu ni daf ko doon fortuwu ko ku gis ni mu ko amee xam ni fortuwu ko daf ko doon ñu ngi ko jëlee ci maam Ousmane te loolu ça n'a rien avec la confrérie waaw te ku ko mujj àtte sunu maam bu baax bi alaji Ibrahima Niass Alaaji Abdoulaye Niass wax Alaaji Ibrahima Niass wax na ma ni moom moo mujj àtte affaire ba wan leen ni Maodo bi muy laata am cër ci tariqa bi fekk na ko mu doon maam ba noppi kon nag fortuwul cëram fortuwu ko moo tax rek si dem nga daan dégg bajen bulu nuyu ni la si demba bay bulu nuyu ni la si demba mam bulu nuyu ni la sa demba ñom mam demba njaay bay ali seeg sam bajje nak ku la nuyu rek si demba parce que problème bobu dafa posé won mais légui nak euh, tuubeen yaa fi ñay wax si mali parce que problème bele xamuñu ko xamuñu ko wallaay ah wallaay ah wallaay wallaay ndeysaan moo tax بمو لا دون والطريقة في دفا دون بابام بنوبي مام عثمان موتا بي واغنار نيوي دي نوكيل سيرين بابكر ني دالوكو تيرب سليل الشيخ سليل الشيخ نور ابيه فيه سموي حاج مالك ونور أبي أبيه من مام عدوانتي مام دم بنا ومرشديه كخالي شيخي حاج عمر وفوتي والكدوي الفاهم ما يرى حاج عمر الفوتي كخالي شيخي الفاهم ما يرى والكدوي حاج عمر الفوتي وغالب الحمد الغالي أئمة ديننا ومجدده وأعطي من أبي العباس نورا والنور المصطفى قد يصطفي سليل الشيخ نور أبيه فيه ونور أبي أبيه ومرشديه كخال الشيخ والجدوي وغالب أئمة ديننا ومجدديه وأعطي من أبي العباس نورا ونور المصطفى قد يستطيع ونكنك فمن لم يستطع بسناه منكم سفير يا له أو كالسلام kooku noonu la boo ko defee nag yow nga jóge fële lekk sa ceeb ba mu neex la ñëw ni da ngay hiérarchiser kër jàngu foo ko teg bew rek waaw ah, moo taxit tabarkalla tabarkalla tabarkalla tabarkalla tabarkalla ah li ngi tolloog nag dañu ñëwoon rek gis leen nu bokk nàmp ci yonent bi ndax mooy sunu suur su nag wax dëgg yàlla moom rek la noonu dëgg yàlla bu ko defee ci biir loolu bokk yi fi toog yépp doomu soxna lañ ku ci nekk ministre ak ku ci nekkul ak ñépp doomu soxna lañ loolu la yàlla dogal ci senegal ñii fi toog tey ay doomu soxna lañ te tabarkal la ci biir gouvernement bi waaye ay doomu soxna lañ ñoom xam nañu ko li ma wax am nañu ko tabarkalla te itam ci biir loolu sama wëllëre la te nit nag su la yéenee jàmm ñaanal ko mu am jàmm kon nag yenn yàlla defal leen jàmm yenn yàlla taxawu leen lépp lu ngeen yéene seen bopp yéene ko réew mi yal ko yàlla mot sa ci biir loolu itam dafa am tuuti rek ndax dama soxla woon président Abdoulaye Wade ci ci gise ci gise liggéey waaye du gise prestige parce yàgge nanu ko maag moom waaye gise liggéey la ñu jàppoon ko alxemes te mu war a dem mu ñëw tiwaawan àllarba ma xam nit ñi bu ñëwee fii àllarba ñu gisee alxemes ñu ne nangam nangam dëgg la walla du dëgg ma ne ko kon nag reposel tuuti rek bu ma gàmmoo ba noppi ñëw mu ne waaw kay booba ma gënal pour wax la ni soo àndee kilifa bul fexe ba ku sew di wax ci deram dar baaxu baaxul dama nekk ci prison bi waat naa ci yàlla ni ku jéem pour génne ma ma rey la parce que ci vacances laa nekkoon ma xëy rek ndeke Mamadou Dia dem na tëral ay tëralam rien pour ma génn te man ci sama aljanna laa nekk mayet ma lànk ba tëdd ja man sama kër prison la kon war naa ragal prison mu dajale sëriñ si pour waxtaan ceeg ñoom ndax ñu jàppale ko ci wax kii wax kii wax ba mu bëgg indi confusion mu ne xam ngeen lu xew defal leen ma fàttiyee rek te jóg dem ñu defal ko fàttiyee jóg dem mu yabal si àllaaji Mat Lamin Jéen ak àllaaji Yuusu Jóob leen dem leen wax sama mbokk ni ko waaw ak kenn ci ci waa rajo bi dama dimbale rek defal ma petite déclaration ndax bu génnee ay bañ a am la jëma Lamine jën ñoo wax ma ko moom nag la jëma Lamine jën dañu meloon ni maag moom ay doomi bàjjen lañ yàlla ko dogaloon rek ci jaxasoo boobu mu indaale borom rajo ni ñaari baat rek ma ne ko est-ce que seetlu nga gravité li nga may laaj ma ko ku ñu tuumaal ba noppi te moom mooy def déclaration ma ni ko fu mu xewe ma ni ko déedéet lu ko rek aqliyan wa mantiqiya ku ñu tuumaal ba noppi moom mooy def déclaration fu ngeen ko ma si gis mu dem wax ko moom a du Dia fekk wal joojo ngi toog wal jooju ni ko Cheikh moo wax dëgg nun ñii noo war a def déclaration waaye du moom ndeysaan ba gannaaw gi ma ñàkk pexe faf giiram te gën a lu ma woon nag parce que xalifa gën lu ma woon ba ñu génnee nag allah jëmal li mu jënd ma man daal li ma ci xam mooy ku bari noonu ngay wattandiku génn waxtaan ma bëgg nga bàyyi waxtaan ba faw ma ni ko d'accord ñu teg ci ñetti semaine ndakaaru ku nekk jël yet wuti sa morom mu daw ñëw ni ma kaay àtteenu ma ni ko ma lànk mu ni ma dimbale ma rek defal ñu gàmm ci ndakaaru mu fay ay wi man ko manuma ko mu dem gisi jigen ji wax ko ko jigen ji dama demal pexe amu ci ñu def kala. ga ca juma ca tabarkal tabarkal tabarkal kenn wutewu ko yalla def ca ndam bu day na ñay wanti li def dafa am ko ko mom te kiko ko gis na ko xam na ko لورك جامسون loolee ka ci am solo tabarkalla tabarka ki ko moom gis na ko xam na ko bu ko defee sunu ci amee ay kilifa man dama nekk nit ñu jafe waaye dafa am baat bu ñu daje ñoom ñëpp mooy abdoulaye wadd xolam baax te ma koy dégg ci ñoom ñu di ko jëwee da fekk la ma ca xam sax ñoom xamuñu ko ba tax na kon nag wax ko ni ko xam nañu fu mu toll waaw du ko xam nañu fu mu toll te itam nag euh, nous avons repris service ndax sama mbokk daayira yi ñaan nañ ma ko maa ngi négocier ak suma turandoo waaw bu ko defee rek nu liggéey nu taxaw liggéey kooku noonu rek la pouvoir nag sama turandoo nu ko tere waaye sañ na liggéey mais pouvoir moom daf nu ko tere waaw mën nañ ko liggéeyal nit mais sañu nu ko liggéeyal sunu bopp fataare loolu mooy li ci nekk ñëwut Tiwaawan bi àllarba su ñu amoon séance de travail alxames àdduna tukki dañ ci wax lu ne parce que nit ñe mel noonu dañu sew dañu sew voilà gis nga dem na àllarba jeudi rek mu ko woo Cheikh Tidiane nga di ko combiné ak moom nangam na eh, oui loolu xam naa ko moo tax ma wax ko ku mu ne entièrement d' accord entièrement d' accord parce que yàq baaxul yàq baaxul te tuuti itam baaxul la laxwum fiha wala taasim la laxwum fiha wala taasim nee ñu àjjana wax ju sew amu fa jëf ju sew amu fa ju sew amu fa jëf ju sew amu fa moo tax mu neex waaye fii wax ju sew daf fi am jëf ju sew daf fi am on en a assez on en a eh, waaye lu koy jar na defar sa nàkk rek wuti foo jëm wallaay buñ ma nee sa mbokk daara sàngam jaar na fi nee nuyoo bànkook na ko ñaan gi dab ma ngay dellu bisim réew damay bit na xam ni borom yitte la walaay ndeysaan sëñ Babacar boo ko ne diw nee na ko ñaan gi mu ni kooku de xam na àdduna walaay ndeysaan tabarkal tabarkal ba tax na ko tabarkal la daayira bi sëriñ Babacar waaye sëriñ Moustapha la leen booleel sëriñ Moustapha benn patron la fi am mooy Pam Mali waaw ah Pam Mali itam tabarkalla benn taalibe la fi am mooy man koy tërale wax ju sew du ci am jëf ju sew du ci am la ndax xaju ci xaju ci mukk xaju ci mukk tabarkàlla tabarkàlla la na yàlla mottali yépp kon nag ngeen waxal ma président noonu dégg ni ko rek maa ngi ca yoon wa du dëgg maa ca yoon ila ma waaw ma àggale kayit gi ma waaw maa ngi ñëw gis nga kii maa ko wax maa ngi laaj sax ndax maa ko defaroon maa ngi koy laaj ndax boobu itam ku sawaroon ci xuloo la wallaay ndeysaan إذا ما رضيت إذا ما رضيت اليوم إذا ما رضيت اليوم كنت كريما وإلا فكن وفق الطباع اللئيمة تسر بموت الأقربين من خارج بباخ بفاتر أم كوكو تدو ري جريني كده أمتي ما نقلول àddee phénomène la waaye blessure physique mi ngi ci moo tax wolof di wax ni diw gaañu na diw gaañu na du du kaf te blessure physique mi ngi ci metti na tricher mais lu ko gën a metti amul parce que ki nga gën a fonk boo demee ba amatuloo ci pexe nga gas ba mu xóot suul ko kooku metti na nit day tricher rek mais metti na motax arab tudde ko helak diw alkuna na waaw wolof ni diw gaañu na blessure physique bi dal di feeñ arab ni diw alkuna la in halak al haj al mumajjad malik bu fekke mawdo dafa alku wa saarat tafinan ñu suul ko mawdo innahu xayru haaliki ndax xadaa taarikan man kaana fi lmajdi mislahu wa ma mata maytun taarikun misla maliki ne bu dul ko nag biñ ko suulee bi ñu dellu fekk nañu mu dundaat ba toog te mooy Sëriñ Babacar Si wante dee metti na ku ku dee ba noppi ñu suul ko xaritam dégg nga di ko jëw ma doxoon ma ma wax ko ko booba xuloo rekk laa sawar léegi sawaratuma ko yi ma fi wax yëpp du xuloo تسر بموت الأقربين لأنهم كرام وتبقى أنت يتيما في اللئام تسر بموت الأقربين لأنهم كرام وتبقى في اللئام يتيما يضيق بكل منهم صدر حاسد ولست